sëriñ bi maa ngi lay ziar. di la nangu ziar na def. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah Cheikh Tidiane la. waaw. ok euh, soxna Dia Sophie moo ma jox sa numéro bi sànq. d'accord. ok man maa ngi fii Sénégal ñu yor fi benn organe de presse. waaw dama ko doon laajte information yi nag après ci la ma ne dinaa la jox numéro daal koo xam ne nii moom moo gën a placé wu pour. Euh, waaw expliquer leen problème yi naka la demee. mais avant loolu ñu ngi leen di masawu bu baax a baax a baax te di leen ñaanal. Euh, waaw waaw suñu boroom taxawu leen bu baax incha allah. allahuma amin amin yaa rabbil alamin allah allahuma amin. mbaa mbaa amu leen fa jafe-jafe jafe lool rek. ma mbaa jafe-jafe yi méttiwul lool lool lool ci yéen rek. pour le moment de sant yàlla à part lancé nañu daal benn sénégalais bu xam ne nii moom moo ci gaañu jot a gaañu. dana mhm. ko yàlla xaaree àjjana. allahumma amiin te au fait da doon sauver sax da doon sauver sax benn yàlla xam na ne benn marocain. Hmm. wallahi mu daanu amay blessure. Mhm. waaw après démb la woon daal tey ci suba la mujj mujj borom. ok euh, ci ban ngeen nekkee. bon man maa ngi Casa man maa ngi Casa. Mhm. man maa ngi Casablanca mais euh, Casa affaire bi santine nañ ko au niveau de Casa. Mhm. am na ay dégâts mais dégâts matériels. bon il parle de trois morts mais pour te dire la vérité man awma ci confirmation ci trois morts yi am Casablanca fi mhm. mais par contre nag ak à Marrakech moom vraiment c'est c'est la catastrophe. donc Marrakech daal fa la fa la fa la jëyee ji ëppee. waaw fa la jëyee ji ëppee Marrakech et environ. ok dëgg yàlla d'habitude euh, Maroc fan la sénégalais yi ëppee. bon sénégalais yi ñoo ngi Casablanca fa lañu ëppee. Mhm. Casablanca lañu ëppee am nañ nag ñu nekk Marrakech aussi. Mhm. waaw léegi dangeen organiser wu de telle sorte que euh, information yi nga xam ne nii day concerner sénégalais yi da ngeen koy mën a jot à temps wala. Wow, on a, il y en a une association qui s'appelle Arcelem. Arcelem, c'est euh, une association pour les Sénégalais résidents au Maroc. Mm -hmm. Donc, d'ailleurs, le président Sahmi de euh, Marrakech. Mm -hmm. Donc, euh, ci ñooñu ci foofu la ñuy sukkandiku daal pour am yenn information yi. Mm-hmm. waaw pour mun na tamit jokkoo parce que dañ ci créer ay groupe mm-hmm. di si jokkoo. Mm-hmm. waaw. Euh, situation bi tey naka la naka la demee foofu est-ce que affaire yi calmé wu na euh, bilan bi aussi fan ngeen jàpp ne fa la toll ci perte de vue. waaw nekk nii dégâts matériels yi. waaw pour ci euh, par rapport ak journée bi tey moom bon ça s'est un peu calmé quand même. Mm-hmm. ça s'est un peu calmé ay rumeur rek ngay dégg ne bon am naa des annonces des trucs comme ça mais du ay information yi officielle parce que normalement bu fekkante ne woon affaire dafa naroon yënguwaat. ñoom mm-hmm. dinañu wax état bi dina jël euh, communiqué def ko mais dafa ko ñu communiqué ay rumeur la rek. waaw mais euh, par rapport ak bilan bi aussi ba sànq nii nii ça fait même pas une heure bi ñuy déglu information yi. Mm-hmm. ils étaient à cent trente mille trente sept morts. mille trente sept morts. Oh. Voilà, il y a 700 et quelques blessés, mmh. dont 300 et quelques blessés graves. Okay. OK. mais par rapport par rapport aussi ak situation sénégalais yi kenn kooku rek la ñu la ñu la ñu mën a dénombré gum ci ko xam ne nii ñàkk na bakkanam amul ay gaañu gaañu yoo xam ne aussi noté nañu ko. déedéet déedéet sérieusement on s'est renseigné euh, par rapport aux blessés mhm. amul. benn moor daal dañuy ñuy rek moom mooy waa jooju ma la doon wax noonu. Mhm. te moom depuis démb ci guddi bañ koy évacuer à l'hôpital dañ ko considéré woon comme blessé. ok tu comprends parce que dafa daanu dafa daanu ci euh, en fait da yéeg pour sauver kenn par yàlla def mu daanu. ok tu vois okay, okay. mais malheureusement il a perdu la vie ce matin. ok parce que parce que yenn information yi ñu njëkk jot ñun ñu ngi wax naan moom da doon da doon tëb pour pour cëppeelu. Euh, alors que daf doon sauver nit. voilà doon sauver nit da doon hmm. sauver ok ok mais yéen ñi nga xam ne ni démb démb dund ngeen euh, affaire bi euh, mën nga dellu si waat ci ban heure la démarré ak yéen ban heure ngeen delluwaat ci seen i seen i biiri kër. waaw en fait man par exemple man dama nekkoon sama kër di seetaan sama télé tu vois. Hmm. doon seetaan TFM di xaar jàkkaarloo. Mhm. donc euh, à un moment donné ver onze heures yooyu euh, onze heures et yooyu la commencé daal la ko laa ko sentir parce que dama toog nii rek jékki-jékki tel télé bi di tremblé mhm. alors comprendre ma xam nga loo musul vivre ci sa àdduna rek mhm. donc j'ai rien compris ma jóg taxaw ma jógee taxaw ma mel na kuy bëgg a daanu bon après ma ne xaar dama dem ci côté waañ bi xool ba ma demee ci côté waañ bi parce que fa la balcon bi féete j'ai vu euh, buntu waañ bi ak affaire yi di yëngatu daal tu vois mu mel na daal lu yëngal kii bi bon man ma tiit ma dégg naa ni nag di yuuxu ci immeuble bi ma génn waaw ma génn bi ma génnee nag ci lañ ma expliqué ñu ne tremblement de terre la ma wàcc. Hmm. waaw ba ma wàccee nag ci suuf saalit naa nag du ma la ko nëbb. Hmm. saalit naa parce que dàll yi ma soloon sax bokk ñu ndey ak bàyyi. waaw man daal sama xel ci demum géej laa xalaatoon ne ma ne xaaral ma dem géej. Hmm. ma jaawalee yoonu géej bi ak ma marché ma dem taxaw ci marché ba. xoolaat sama bopp ma ne waaw man demoo ma géej gi maa ngi marché waaw ci taa ngi daal moo ñu jàppoon ci daal jàppoon nañu au début. Hmm. waaw jàppoon nañu lool parce que on voyait les gens dehors le monde bon nekk ci biti ku nekk yaa ngi jaaxle xamoo fooy dem hmm. tu vois jaar ni ñii jaar nii affaire bi jaxasoo à un moment donné euh, euh, tiitoon nañu tiitoon nañu lool lool lool lool yàlla tax. ok dëgg yàlla. donc vous êtes obligé. ngeen de ngeen ngeen des ci biti ba ba ban heure ngeen doog a delluwaat. voilà euh, ci biti. parce que après bon ñun euh, bi ñu taxawee nii dañu newoon nañ dem ci espace boo xam ne dafa large ils avaient choisi des espaces comme par exemple benn espace bu tudd Casa Voyageur fii. Mhm. ñun foofu la ñu waxoon nañu dem mais dañu ne avant ñuy dem nag ku mun a dellu si sa biir kër. Mhm. nga couper sa courant tëj sa bouteille gaz. tu as def ko mhm. balaa ngay génn di dem. ok bu fekkee da nga yor oto nga génnee ko ci garage bi nga gaaree ko ci espace. waaw loolu daal moom jot nañ ñu ko wax. man par exemple ci laa delluwaat ci biir. Euh, tëj gaz yëpp. Mhm. coupé courant bi tëj kër gi jël sama passeport génn ak moom bon ba ma génnee moom nag c'était ay minuit yooyu fekk ñu tiitalaat à un moment parce que amoon na benn communiqué bu waxaatoon ay booru deux heures du matin day am benn mouvement. or mhm. que fausse alerte la il paraît que am na sax mais c'était pas kiiwul c'était pas méchant. donc gars yi ne léegi nañ dem ci espace yi ñii di wax nañ leen dem stade ñii di wax nañ leen dem fële ainsi de suite mais man daal. Casa Voyageur laa dem te fa laa toog ba cinq heures du matin. ok waaw. donc euh, foofu. fa laa Voyageur aussi tase nga fa ak euh, yeneen i sénégalais yoo xamante ni yéen a ngi woon ensemble. waaw y avait beaucoup de sénégalais y avait beaucoup de compatriotes d'ailleurs man bi may dem sax ay xale yu jigéen laa àndaloon ay xale j'ai senti que ay xale lañu. Mhm. j'ai pas voulu que ñu dispersé wu man leen ñu mel nii bu ñu nangu dispersé wu xale ñu àndandoo rek ñu demandoo. Mhm. donc on était huit personnes ñoo àndandoo ba Casa Voyageur ñu taaxaw foofu alors mm-hmm. après ñu mujj toog ci suuf nii ñu nangu suñu mbokk naar yi tu vois mm-hmm. yeneen nationalité yi aussi des Ivoiriens des Congolais tout ça là donc euh, ñu daje fa alors euh, taxaw foofu nag di waxtaan des fois information jàll des fois nga xam nga rek comme rumeur rek affaire su amee moom toujours y a waaw des fois ñu ne leen affaire bi day recommencé waat des fois ñu ne noo taxaw na ainsi de suite daal mais daal ñu taxaw fi ñu taxaw rek. Hmm. ba finalement nag ñu jot communiqué ñu ne ku nekk mën nga delluwaat sa biir kër mais en ce may il faisait cinq heures du matin. ok donc donc à moom ngeen. waaw delluwaat ci kër yi. waaw waaw cinq heures du man cinq heures maa ngi woon sama biir nekk. Euh, donc avant avant séisme bi di am aussi amul woon euh, benn communiqué boo xam ne alerté woon na ci situation bu mel noonu. déedéet amul benn benn benn à mon niveau. je crois que aussi par rapport ak tout le monde amul woon kenn kenn ku amoon information bi. ok y' information sérieusement y' avait pas du tout d' information. ok ah. euh, donc pour l' instant nii ak euh, ni situation bi demee nii euh, dafa mel ni dëkk bi ba léegi lépp dafa ne tekk dara dara dara yënguwut ci wàllu dem ak dikk beeg liggéey beeg yooyu. waaw parce que fu mu nekk nii waaw c'est vrai parce que bi situation bi boo xoolee atmosphère bi c'est calme parce que daan na gën a xumb fii. Mhm. commerce bi daana na gën a dox naar yi daan nañ gën a demalante mais c'est très dafa calme dafa calme daal dafa gis daal ci kanamam benn tristesse nga ci liir. Mhm. waaw benn tristesse nga ciy liir euh, voilà kay xaw nañu jaaxle daal xaw nañu jaaxle. ok parce que euh. Casa daanaka heure bi daana xumb surtout les samedi après midi nii. Mm-hmm. dafa daa xumb naa di di jaay fii ñi di doxantu fii mais euh, ba fi may wax ak yow nii daal si dëkk bi a ngi calme c'est très calme euh, ñu ñuy ñu ñuy wax aussi ci ay xibaar ne jë ji fa ñàkk bakkanam mu ngi wuyoo ci turu Medoune sàll nekkoon doom ci euh, maam Abba sàll moom jo jot ngeen xam ñu ko xam wala ngeen dégg dara ci moom ci ci période bi muy nekk foofu. waaw c'est je te confirme li nga wax parce que kilifa la woon tamit doomu kilifa la woon. di ko Coran yàgg Marrakech waaw ñu xam nañ ko bu baax ràññee nañ ko fii bu baax ci ay jëf yu baax mhm. dëgg yàlla ràññee nañ ko fi ay yu baax day dana def ay ñaan daan yi waaraatee di wax ak nit ñi di wax ak sénégalais yi am na rek waaw dëgg yàlla waaw loolu moom seete bu rafet la am ci moom mhm. te xamoon nañ ne tamit doomu kilifa la waaw heureusement mhm. te yàgg na Marrakech tamit yàgg na Marrakech kon loolu une immense perte la boo xamante ne ni Sénégal yëpp euh, perte nañ ko jëmb ju mel noonu wallahi wallahi lazim lu rëy la ci ñun lu rëy la ci ñun lu diis la ci ñun dëgg yàlla parce que c'était une personne serviable d'ailleurs la preuve est que gis nga gis na nit bu nekk en difficulté mënoon na sax xam nga yabal ay nit wala wane ko wala des trucs comme moom ci boppam moo jéem a dem pour euh, sauver bakkenu kooku far yàlla jël bakkenam mm-hmm. donc ci loolu la doon dox rek ci loolu rek la doon dox ndeysaan ndeysaan wallahi wallahi Euh, kon Cheikh Tidiane mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. te di jéggalu aussi ci sa temps bi nga xam ne jël nañu ko. déedéet def ngeen lu rafet parce que lii dafa baax. am nga hmm. ñun dañoo am ay mbokk suñu nekk Sénégal te dafa baax tamit ñuy def ay témoignages yu mel nii di dalal seen xel. en tout cas ñoo ngi lancé un appel aux autorités di lancer un appel à la population sénégalaise ñoo xam ne seen doom yi nekk Maroc ñëpp a ngi ci jàmm ak salaam. Hmm. waaw ñëpp a ci jàmm ak salaam. à part kenn kooku ñu wax daal amul keneen kuñ fi dégg ne blessé nga wala gaañu nga. Hmm. waaw ñoo ngi demalante ñoo ngi jokkante man sama téléphone chaque heure day sonné nit yi dañuy nemmeeku di laaj. waaw te on leur donne information. Hmm. man maa leen di gën a kontaan leen remercier encore ci li ngeen def. jërëjëf Cheikh Tidiane.